mirage fen rek fen rek teh rek dul rek teg ay soop ay non si sen abdo yeb ba bari ñu ne wax ni di deug man bala maa dèjà bu dëgër beek bu noy bi teg ku lay def bu bi fen rek la mo tax fen ku lay def bu dëgër bi hypocrite la kanaan la bu bi gëmut ko kanaan la bu lu muy wax gëmu ko bu gisee iri iri bu deme ñew fen bu deme ben salle bu ndaw ñew ne la man star la jouer <laughs> malade té nak lu gëna graw moy sénégalais du la wax mukk tourner kaw ñeu indil la vidéo mus ngeen gis daara ji moy dem jouer ji ñeu indil la vidéo yow muska yow taxawaalu ji nga ba sey ba sey kàpp ta tang nga nga ñeu <laughs> ok léegi sénégal xam lu neex artiste dem tourner quoi nee nañ tournée la dem de taxawaalu ba kii ñëw mais kenn mais nan ngay demee tournée toj tournée ba rajaxa tournée ba bombardé tournée ba te ñun mus ñoo gis benn vidéo tournée Sénégal di nga toog ci télé di seetaan cinquante ans di déglu ci rajo yi suba ak ngoon ay artistes dañuy def tournée mais doo mus gis vidéo bi <laughs> sénégalais bu ñu ne toj na fa na rajaxe ne stade ba ne xarna ko juróom-ñaar comme kunkande rek xarna ko juróom-ñeent xarna ko set patch xam stade ba dama ko xar set patch comme kunkande ah xotti ko xarna ko tojate na ko bombardé na ko mais ci radio bi de mais télé bi ba légui do gis image jamais jamais nga gis image artistique fum ko tojé fum ko bombardé ba par nak lu gëna graw ay fans sax dañu taxaw de way no sama artiste du artiste non sa way la def na ko juróom-ñaari pàcc xotti na ko fekk ab cabaret lañ cabaret comme mel ni cabaret sauvage ay cabaret la ñuy dem di jouer ji ah. ay cabaret ay boîte de nuit xat yoo xam ne ay teggil sa tànk ma teg la teggil sa tànk ma teg ndax xataay buñ demee ñëw ah commencé demal sa lii sa laa sa tel def naa fii xar naa fii bombardé naa fii te <laughs> <laughs> vidéo jamais man musuma gis ci man dal télé avec internet bi ben concert la ci gis ay concert yi ma fi gis yëpp daara ji la quoi vraiment daara ji daal laay gis ni ñom dina gis seen vidéo quoi te vraiment do leen dégg nak sincèrement ak seen humilité ak seen humble do di man musuma dégg ay ay ñoom faa defari naan rajaxe nañ fi bombardé nañ fi ils sont très simples très simples xana xamu leen ben affaire mo wax leen dara les tonneaux vides font beaucoup de bruit ku la gën a ñod di ay am-am il est ku la gën a daa gën a làqatu il est riche dem lu leen xam-xam ne képp kuy ñod am-am dafa pauvre képp kuy nëbbatu moytu ko dafa riche borom alal yi dañuy nëbbatu ñu ñàkk ñi di wonewu borom am-am yi dañuy nëbbatu ñi ñàkk yi di wonewu ku la dàq yuuxu deful dara daara ji foo leen gis ak humbleness dañuy ñëw taxaw wax ak gars yi bon joué nañ fii joué nañ faa bon on a vu que nanga fekk daara ji toj nañ fépp dem nañ fépp mais koo ci ay fan yo xamni té sénégalais duñ top dé da ngay gis artiste billahi man dégg na fi artiste ñëw waaye ñun hip hop ah, jël nañ benn awards boo xam ni xool meilleur artiste africain ñun jël nañ nangam stade buñu jouer joué stade bu ñu à part Youssou Ndour man dégg naa ko fi samay nopp stade buñu jouer à part Youssou Ndour kenn mosu fa joué fen rek té ba léegi waxuñu stade bi te amuñu benn vidéo buy wane ni jouer nañ fa ay artiste sénégalais rappeur na ñom jël nañ hip hop awards africain barke Seydina Mohamed musuma gis musuma ko gis du video du photo du seen gémmiñ daal lañ yor di wax